booba tey noo ngi bay waaye xam nga ndox ak jafe-jafe bi surtout kuy taal gaasuwaal du toujours ba nga ko bëggee doo ko am kon nag salaire bi moom xam nga luy dimbali nit la ndax salaire ginnaaw ci jant bi lay maas fay ga du demee nam war a demee boole ko pompe bi dina indi ndox nam nam ware ay machine yi walla fa njëkk a indi gox bépp am indi na fa ñoo xam ne danoo formé ci njàng mbay mi ba nu mokkal ay foni foni fan loolu lépp def na ko fa pompe bu mu leen digoon pour jàppale leen ci liggéey bi moom la ñu woote woon tey pour jël si ko bi ñu ñëwee nag ñu am ci mbégte lool ndax ñu ngi ànd ak présidente groupement des femmes yu ñaaxeen ñëw fekk fi madame la ministre ak équipe am yëpp fekk fi également monsieur Ibrahima Diouf le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar mu doon jataay bu am solo ginnaaw bi ñu ko madame la ministre ñu sant ko gërëm ko am ci mbégte waaye wax ko nag ñoo ngi ñaan ginnaaw bi ñu ko assuré ne pompe bi mu ñu jox danañ ko utiliser danañ ko jëfandikoo ca na mu gën a rafete te bu fa del suwaatee beneen visite dana gis ne am na lu yokk ci liggéey bi waaye nag ñu ñaan wax ne cérémonie bi na doon at tàmbali ci partenariat ak coopération boo xam ne ñaaxeen université ak ministère de la femme dañ koy am seen diggante mu doon partenariat bu sax tàkk. avant le 8 mars dama ñëwoon commune Niakhène seet ci campus ruralu Niakhène nga xamné université Dakar mo lëkkaloo ak commune Niakhène taxawal fa lo xamné lu am solo projet bu am solo pour suqali jigen ñi waye da bu ñu suqali jigéen communauté bi yépp parce que jigen ñi ñoko au centre des familles projet bi nak muy projet bu am solo bo xamné yag na taxaw ci commune Niakhène am ci taxawaay bu am solo permettre jigen ñi vraiment ñuy liggéey permettre ñu autonomie seen pour am lo xamné ay ressources la comme ni ko aw waxee ci film bi